voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañ ci suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toogal ak ki nga xam ne moo di docteur Nafissatou Diouf nekkit koo xam ne kii xam nañ ko ci way taskatu xabaar ndax taskatu xabaar la waaye am na yeneen it ci wàllu communication yooyu maninam la euh, muy bokkit ci ñi nga xam ne ñi ngi xëccoo fële ci Rufisque Est nag foofu maanaam penku penku tëngéej mën naa ko wax daal jëm ci boori bataa beeg la ci aju ci gox goxaan ruq-ruqaan yooyu la soxna Nafissatou Diouf ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay euh, Alaaji Maodo mhm. euh, di la jox sa wàccuwaay mhm. euh, di jël nuyoo bu sell bi ma lay nuyu mhm. teg ko sa loxo nuyu képp koo xamante ni tey mi ngi suturloo fii ci Sud FM seen rajo mënu ma nag ñëw ba Sud FM te doo may diir gu ndaw rek ma nuyu nag kilifa yi fi nekk ak yi fi jógee bu ma xalaatee ki ñu naan dem si yàlla si Babacar Touré man bi may ñëw Sud FM 99. Mhm. fi laa ko fekk. Mhm. ak kilifa gi naan Chérif El Valide Seye. Mhm. waaye itam di nuyu. ah euh, monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly mm -hmm. Ah, sama ancien yi Oumar Diouf Fall ak euh, ñeneen ak ñeneen yoo xamante nii ku ma ci bu ma liimee naa juum waaye itam di nuyu bu baax euh, Baye Oumar Gueye ak ñi ma fi fekk su FM nekk rajo bu mag euh, daa di aussi des nekk ci rajo yi gën a mag fii ci Sénégal maa leen di nuyu leen jox seen wàccuwaay soxna Nafissatou Diouf dégg nañ la ci wàllu politique ca Tëngéej Tëngéej bokk na ci secteur yi nga xame ne fii ci biir Sénégal yu gën a compliqué ci la bokk Ismaïla Madior Fall nekkoon fi ministre nekk jàngalekat moom Macky Sall da koo tabb ci dëkk bi tabb ko it ci ab ruq mu nekk nag mbir moo xam ne yow da ngaa topp ci gannaaw al toppe googu mu ne woon a jéem a lijjanti yow noo demee. Euh, di la gërëm bu baax Maodo ci question bi. Mm-hmm. Euh, ndaam dañoo tudd Tëngéej. faaw aussi nga may ma mu nuyu waa Rufisque Est beral leen loxo. Mhm. ne man foofu euh, laa soqe ko foofu laa yaroo fa laa màggee. Mhm. Euh, fa laa it am kër. Mhm. Euh, ñu nekk ñoo xam ne ñu am jom lañu. ci wàllu liggéey moo xam ndaw yi la moo xam jigéen ñi la moo xam ñi digg doom moo xam ñi gën a nekk mag. ñu nekk aussi askan woo xamante ni jëluñu ndaare ci fi nga xamante ni moom mooy département Tëngéej ci kanam tuuti nañ ci ñëw. Euh, li tax ma wax ci askan wi mooy yàlla daf leen jagleel ful ak fayda ña fa yeewoo yàlla jagle leen ful ak fayda man ca laa bokk ful ak fayda lañ ma xamee euh, waaye xam nga boo ne ful ak fayda wax nangu kilifteef nangu kilifteef tey euh, moo tax ñu topp ci dogalu président la République son excellence monsieur Macky sal nga xam ne moom aussi moom mooy le président de la grande coalition benn Bokk Yaakaar bi nga xam ne Euh, ci la ñuy demee effectivement ci élection yooyu euh, mun nañu nag euh, ki nga xamante ne moom mooy tête de liste et de la ville et de l'Est en l'occurrence le professeur Ismaïla Madior Fall ministre d'État c'est vrai moom mooy suñu tête de liste ñun tamit nag ndax liste yi génn na ñëpp ñu ngi koy publier ci réseaux sociaux yi ak fépp ñun ñu tabbuñu ñu nekk tête de liste proportionnelle mu nekk loo xamante nii dafay fësal suñu pas-pas fésal aussi suñu mbébét ci askan wi mbébét bi aajow ci rek soppi xar kanamu Rufisque Est ndax ndax xaw ma ndax xam nga Rufisque Est sànq tudd nga ci ay pàcc bataa ca la bokk boo ne bataa ne cëw euh, boo ne cëw boo jégee tali bi yaa ngi janook euh, cimenterie bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest euh, cimenterie boobu muy muy Sococim cimenterie boobu jàkkaarloog benn lenn ci ay quartiers yi gën a rëy ci Tëngéej mu nekk Guy Murit mu nekk quartier boo xam ne tam soxla nañu lépp euh, li nga xamante ni tamit bokk na euh, ci suñu axe programme am pàcc bu rëy bu mu jagleel la Guy Marius soxla Arafat soxla ko Kastor soxla ko këri kaw soxla ko këri suuf kazaalika lépp loo xamante ni gox la yu bokk ci risque mu nekk réseau d'assainissement moderne loolu dafa bokk ci programme bi njëkk ci suñu programme ci mouvement Nafi pour Rufisque programme bi ñu dubbee ko ànd suqali Tëngéej lu tax ma insister ci loolu gis nga assainissement Maodo dafa ëmb lépp assainissement dafa ëmb santé maanaam wér-gu-yaram assainissement dafa wër jàng ndax booy jàngi da nga am ay yoon yoo jaar. yow Tëngéej gi nga naan assainissement loolu laa lay faral di tooñe naan la li gën a jafe ci Sénégal mooy assainir Tëngéej am na ay kilifa yu fa nekkoon bu yàgg yàgg yàgg ca Mbaye Jacques Diop ba léegi. tëngeej nii mu mel noonu la mel maire ya fa nekk ñoom ñoom Boubacar Albert Ndoye def nañ leen man te yow li ngay wax ni ñoom xam nañ ko lan ngeen leen mën a tegal comme programme bu tax ñoom loolee mën a soppi seen doxalin wala yéen yéen yéen a leen ëpp xam que euh, ndax tax nañu def ko li tubaab bi naan je donne ma langue au chat waaye lañ ca xam mooy naam bokk na ci axe yu faar suñu programme loolu mooy des na lu bëri loo xam ne war nañ ko def ngallaawaay nag euh, terewul am na ay programme yu fi nekk ñu duppee Promoville Puma ak yeneen yeneen yoo xam ne ci état centrale bi la nekk. Mhm. en tant que maire parce que xam nga maire mooy lan en dehors de aspect politique bi. maire mooy koo xamante ne nii dafay dem am ful ak fayda. Mhm. am mat dayo goo xam ne. Mhm. day dem loqoti programme état yi nga xamante ne nii war na mën a euh, suqali goxam mu dem jël ko bu mu ko jëlee ba pare nag bu ñëwee du ne yaac ne yasar da koy topp li président naan fast track da koy topp ba mu yegg. ñun nag ci loolu lañu bëgg a jokk parce que dañu ne ñun politique euh, naam tëngëj la fekk baax développement daf ca war a topp ndax politique mooy ci nasaraan ci tubaab gestion des affaires de la cité maanaam lijjanteeg làqar ci problème yenn ca cité tabax cité bi rek. tabax cité très bien sëgam nag mooy tabax cité bi ah question bi nga posé de dama la koy delloo ndax yow journaliste nga macha allah xarañ nga. xam nga ne am na lu bari lu des. naam mais c'est normal daañu daan dajul suuf. Euh. effectivement comme daanu dajul suuf nag il faut aussi nag boo defee ak diir fukki ak ñaar pour euh, reprendre euh, ki nga xam ne moom nga tudd di sama frère Boubacar Albendooy nga xam ne moo fi nekkoon maire léegi nag moo fi euh, mais fi mu toll nii maire sortant la parce que ñi ngi ci ay élection donc comme maire sortant la nag comme def na bilan ba pare dañ koy ñaan 23 janvier 2022 mu xajal ñu fauteuil bi ñun tam ñu toog en tant que ndaw en tant que jigéen en tant que jigéen ñu mën a nag dérouler li nga xamante ni moom la ñu tàmbali boobu ba tey ndax commencé nañu déjà bu yàgg depuis atum 2016 ñi ngi nekk di càmbar euh, lijjanti ak euh, maanaam saytu ni nga xamante ni ñoom la euh, moom la population war a gën a mën a toogee ndax depuis 2016 ñun li ñu def te sax un peu avant dañoo taxawal li ñu naan association Tëngéej tuuti tànk maanaam ndaw ñi ndax gis nga Maodo boo fi bëggee teg BRT teg fi TER teg fi yeneen i programme ak yi ma la wax sànq ak yeneen yi nga xamante ne nii dafa jëm ci atum 2035 ndax président de la République son excellence monsieur Macky Sall nee na en 2035 à l'horizon 2035 dafa bëgg Sénégal nekk pays émergent ni ma ko waxee sama programme bi nag pays émergent programme fi pour Rufisque ni ma ko waxee mooy euh, boo bëggee Sénégal émergent kër yi dinañ émergent quartier yi danañ émergent commune yi danañ émergent teg nañ fi nag ay programme pour loolu mais programme yi ni ma ko waxee dafa war a am ay soxna ak i euh, góor ak i équipe yoo xamante ni yàlla may na leen xarañteef goo xamante ne ni xàccandoo dóorandoo mais nag aussi nag ñu topp programme bu ne ba mu yegg d'accord topp boobu nag dafa des dafa des d'accord na da ngaa bëgg a wax ne ñoom Albert Ndoye dañoo des le mais nga ne 12 euh, ans bi nga xamee ne Boubacar def na ko effectivement yow da nga ne nañu xajal nag yéen ngeen ñëw toog pour àggale seen programme bi nga xam ne yaakaar nga ne moo gën a baax incha allah waaw léegi bu leen Albert nag Euh, xam nga ah, foofu probabilité la mën na leen xam nga foofu yegguñ fa xam nga lu tax. ah déet déet ci compétition lañ jëm de. compétition te Macky Sall dafa samp euh, le ministre la Ismaïla Madior Fall. woo ko mu ne ko man damay dem ak sama bopp ko loolu mooy kóolute en fait pas défier mais entre dafa samp Ismaïla Madior Fall ne ko ville Rufisque teg naa la fa ak ak penku Rufisque te boobu fekk na euh, Albendooy ma nga ca ba moom te mu taxaw ne ko may damay jàkkaarloo moom moo tax man la probablement mën na leen gañe xam nga boo waxee président la République Macky Sall da ngay tudd président coalition Benno Bokk Yaakaar défiance boobu naa si ñëwaat ndax man duma ko tuddee défiance. c'est quoi euh, coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo jox bopp Ismaïla Madior Fall. ah waaw ñoom ñoo ko jox bopp. pour mu diriger li nga xamante ni moom mooy liste ville bi euh, sëñ Maodo. c'est comme dans les comme yeneen localité yow tamit yeneen collectivité locale yi. Macky Sall mooy tànn di xam nga fi mu toll nii ko def ko Macky dafa yeewu de boo demee sax moo fénkale gars yi. xam nga fi mu toll nii euh, boo tuddee président da ngay tudd euh, maanaam ki nga xamante ni tey moom moo jiite coalition bi ki ku jiite coalition ak ku jiite njaboot a yem xam nga sànq da nga ne défiance may lu défiance nga ne njaboot boo ko jiitee mhm. lépp ngi ci njaboot. lépp mi ngi ci njaboot euh, dafa fekk ne ku nekk boo ko joxee walla nga wax ko la nga ko war a wax yow mi jiite njaboot gi ku nekk nag danga koy bàyyi ak liberté am boobu tey moo tax moo tax effectivement ku ci nekk ñi wóolu seen bopp ñu dem sampi seen dënd waaye nag samp ndënd boobu xam nga lu ci ëpp solo hmm? mooy wax nit ñi lu ñu mën a dégg mais plus que wax nit ñi parce nit ñi je pense bu dee wax rek wax nañ leen ba pare te bu dee gis nee nañu weddi gis bokku ci lañ ca lañ ca doon wax gis nañ ko dafa jot nag dafa jot ñu jox bopp ah ñi nga xamante ne aussi euh, ba ñu dalee sonn ci euh, askan wi yàgg na ba ñu dalee xar seen tànk tubéy ak takk seen dafa sër bëgg mbébéti askan wi ñu mën ci jóg dafa yàgg ñun de ci lañu bokk moo tax damay faral di wax naan Maodo élection législa élection euh, locale locale du législatif du présidentiel élection locale da ngay tabb kala doy ka nga bokkal dëkk nag ba pare man nag ma am yaakaar bu baax ci. non seulement ñi ma bokkal dëkk mais si seen intelligence parce que ay nit nag yu bëgg yu baax lañu dafa fekk ne rek du ñëpp mën a dem bokk ci ay jongante maire dafa fekk ne rek du ñëpp am jot parce que tam dafa laaj temps. dafa laaj temps dafa laaj investissement humain dafa laaj investissement intellectuel dafa laaj parce que. ay moyens parce que non non seulement avant les moyens Maodo nga baal ma avant moyens xam nga lan la laaj laaj. expertise xam nga nit ñi dëpp da xool Tëngéej ba ñu daree def politique ba tey Tëngéej. Mhm. ni nga ko waxee le tableau ne pas rose. boo fa duggee Tëngéej c'est un souk ambulant c'est un c'est c'est un souk pardon géant foo dem marché la. ñun tey sànq da nga doon tudd euh, dama doon tudd euh, ay pàcc yoo xam ne dafa bokk ci Rufisque pàcc yooyu këri kaw ak këri suuf ca lañ bokk. Mhm. foofu c' est le c' est le centre ville mais centre ville boobu ce n' n' est un centre ville que de nom boo fa demee xam loo koy fekk ay camions yuy dem ak ñëw ay camions yuy stationné foo sànni mbattu mu takk nit ñaa nga lal fu ne di jaay mais mais loolu boo fa duggee rek nga xam ne il y a un manque de vision prospective li tubaab bi naan planification. absolument absolument manque de vision prospective. di gis nga mais mais non <laughs> parce que parce que comme ni ma la ko waxee sànq rek gis nga nit ñi aussi dañu yor si dañu yor seen gët di xool. Euh, la fa nekk ci ci désordre aménagement urbain amu fa. espace de l' aménagement. espace de espace de comment on appelle ça aménagement de l' espace pardon amu fa. amu fa nañu waxante dëgg. du tout da gis sax trottoir boo xam ne man gis naa fa trottoir boo xam ne dañu faa tabax xam nga imagine trottoir nga xam ne si pour les piétons maanaam euh, nit ñi yor seen tànk yoruñu vélo. yoruñu leneen yoruñu oto seen tànk la ñuy dox. nit ñi piétons yi léegi nit ñi nit ñi ci ci chaussée bi li tubaab bi naan chaussée ci tali bi la ñuy dox bokk bokk ak oto yi tali parce que amuñu fuñ dox parce que fépp marché la boo ko ñu ne waaw damay fay patente et cetera loolu loolu xamuñu beneen euh, suñu beneen axe programme xam nga lan la dañ ko tuddee culture et tourisme euh, ñu ne nag dañuy euh, valoriser li nga xamante ne moom mooy écotourisme fexe ba. aménager littoral bi littoral mooy fi nga xamante ne nii dafa làng ak géej bi aménager ko de sorte à que dañuy créer foofu ay biens et services mais plus mais plus euh, non non du ñu yëkkati kër ah, par contre ni par contre non du ñu yëkkati kër du ñu yëkkati kër xam lu ah, tax duñ xam nga xam nga lu tax du ñu yëkkati kër au contraire kër yooyu dañ leen di consolider xam nga lu tax xam nga fi ma tuddee cœur de bi këri kaw Rufisque foofu c'est la mémoire de Rufisque boo fa demee tey di nga fa gis bâtiment yoo xam ne dalay fàttali lu bëri si suñu démb bâtiment yooyu dañ ko war a classer buñ ko classé ba pare nag ña fa yeewoo aussi ñu jox leen ndàmpaay wu dun lu tax ndax dañ ko bëgg def maanaam bërëb boo xamante ni euh, fa la euh, nit ñi euh, maanaam di ressourcé woo ci lu ci wàllu bëri d'abord dañ koy def ni mu tuddati un espace piéton maanaam foofu kenn du fa dem ci oto boo yore oto da nga koy gaare ca kaw ca làng wa à part vélo nit ñi seen tànk la ñuy doxee bu ko defee nag aussi. beneen pan bi nga xamante ni moom moo nekk ci euh, culture et tourisme boobu nekk suñu beneen ax programme mu nekk dañoo bëgg Tëngéej nekk une ville mémoire donc wax naa ko sànq dañuy restaurer patrimoine matériel bi ak immatériel waaw di aménager principal artères yi aménager ko de de sorte en faire des artères piétonnes mhm. ba pare nag mu nekk ay rendez-vous culturels majeurs yoo xam ne chaque jour la mhm. euh, comme ni ma la ko waxee bâtiment yi nga xam ne dañ ko bëgg restaurer après mhm. képp kuy peintre képp kuy sculpteur képp koo xamante ni art visuel nga ak it aussi les arts de la rue dañ leen di bàyyi ñu exprimer wu fa d'accord ndax loolu dafa am solo ci dëkk. Maodo mais Nafi sa programme xam nga li nga wax ni lépp c'est yaa ngi énuméré sa ay programme ak yu demee noonu.

partie de l'histoire de Rufisque parce que il a été maire pendant 12 ans. Oui, mais mais justement. mais mais heureusement <laughs> heureusement ça di am na lu mu fa def parce que ci tubaab bilan mooy li nga def. la mu la la mu la mu fa def nag la la mu fa def. la mu fa def euh, doyul. ségam doyul euh, ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk. Euh, ci mouvement Nafi pour Rufisque xamal xamal tax mouvement bi ñu samp ko maa ngi gërëm bu baax nag ñëpp ñoo xamante ni tey dañu jox bopp investir ñu depuis le premier novembre ne ñu Nafi ñun yow la ñu investir nga nekk suñu candidate à la mairie de Rufisque Est. plus plus je suis candidate da ngaa bootu ci gannaaw Ismaïla Madior waaw waaw mais bootu bootu ci suis très fière xam nga bootu bi xam nga lan la bootu bi xam nga lan la. liggéeyal coalition bi ba ñu gagné te incha allah non seulement on va gagner ci kat ñu yàlla mais on va avec la mémoire ah bu gagné xam nga kan moom mooy programme bi ma taxawal ak nit ñi yow pour yow yaakaar nga ne Ismaïla Madior Boye mais astafurla euh, astafurla Ismaïla Madior Fall mais nga xamee ne mhm. dégg naa proximité zéro jegewul askan wi nan la mën a kan moo la ko wax parce que parce que loolu la nit ñi gis kan moo ko gis ah, bi mu nekkee ministre ci askanu Tëngéej nga naan Ismaïla Madior Fall muy dë muy. Ismaïla Madior Fall Tëngéej la dëkk di. dëkk fa dafa tax nga nekk ak nit ñi en contact. en kay non mais quand même. ah Maodo. non nañ bàyyi Maodo man Tëngéej laa dëkk. nga xam nga. xam nga xam nga la mooy jege askan wi. ah baax na euh, Maodo nga may ma tuuti foofu ndax dafa am solo ma leeral lu bëri xam nga jege askan wi mooy lan. mooy lan jege seeni i bëgg-bëgg xam nga bëgg-bëgg bi mooy lan. Mhm. mooy soppi xar kanamu tëngëj xam nga se bien boo man damay faral di di dégg naan ñu naan waaw euh, ku am dëj mu dem ku am ngénte mu dem c'est vrai loolu dafa bokk ci fonction maire. parce que da war a jege say population. mais tamit mais mais mais pas que ça. mais pas que ça xam nga nit ñi lu ñu soxla nit ñu soxla ñu 5000 francs 10 000 francs de waa Rufisque Est xam nga lu soxla Hmm? am des espaces intelligents yoo xamante ne nii tey xale yi bu ñu soxlaay infrastructure sportive euh, mag ñi ak senior yi ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy waxambaane yi ak ak ñoom ñooy ñoom ñooy waxambaane yi ak ñi nga xamante ni euh, ñoom ñooy xale jigéen ñu ndaw yi am foofu maanaam ñu aménager leen ay parcs yoo xamante ni c'est des parcs intelligents yoo xam ne dafay agrégé ay espace de sport day agrégé ay espace de de, de loisir c'est vrai que le sport aussi c'est c'est professionnel dafay agrégé ay espace yoo xamante ne nii suñu mag ñi suñu mag ñi fa la ñuy doxantoo parce que parce que gis nga cadre de vie xamal fa moom solo xamal tax moom solo mm-hmm. dafay répondre à à la problématique même de l'espérance de vie parce que suñu population yi elle mérite ça. xam nga man li ma li ma mënul comprendre mooy yow d' accord wax nga sa programme nii ci tënkee risque est ne dañu bëgg ay espace yoo xam ni distraction fii ndaw ñi mën a kii changé xar karam gi dama ne ku fa def 12 ans te amul programme bu mel nii. kon loolu dina ma jaaxal moo tax man la yow li nga wax ni amul tëngéej tëngéej tëngéej ma fa benn espace boo xamante ni c'est un espace multifonctionnel amu fa te Tàggalan Diouf mu nga Rufisque. maanaam xaju fa tamit. xaju fa mooy waxi lan mais un maire il est là pour pour pour, pour regarder plus loin que ses administrés moo tax ñu teg ko fa di. yow tey yow nga fa ne yow pour euh, c'est euh, euh, je veux dire que c'est pour tes beaux yeux que yow nga am njaboot c'est parce que aussi am na loo leen magee c'est parce que aussi am na loo leen mënal njaboot boo ko jiitee attention da nga war a gis foo xamante ne ñoom gisuñu ko. danga war a bëgg loo xamante ni ñoom war nañ ko bëgg mais peut-être que ñoom peut-être seeni seeni âge ak seen dayoo jotagu fa loolu mooy maire. Oh, d'accord mais mais xam nga benn bokk yaakaar ci tënkee dafa xotteeku ko aw sagar de. déedéet. Ah yow de yow de ban gën a tënkee. ah bon ñun ñu defar confectionner suñuy liste sans oh, oh, tambour ni trompette. confec non mais non dañoo confectionner suñuy liste sans tambour ni trompette déposé ko à temps kenn kenn rejeté wu ko mi ngi fi. Euh, si si si ñun la bokk ci lan. lan mooy loolu. ci compétition yi ngeen mu nga ca mu mi ngi ci compétition yi. waaw d'accord dama ne ci benn bokk yaakaar laaj naa la ko. Ah, moo tax ma laaj la question yi pourtant moom. waaw yow xam nga que tuddoo fa fukki nit tuddoo fa juróomi nit ña nga fa tudd. individualité yu am solo la benn mais man je je je. wax na dafa def déclaration ma dégg ko. en tant que journaliste loolu jàll na sama journal mu ne. ñu ngi fii ci biir Tëngéej mais ñun bi ñuy ànd ak Benno Bokk Yaakaar tamit man gis ngeen li ma def gis ngeen li ma def assemblée nationale. Benno Bokk Yaakaar kan moo ko fa dugal non non déedéet léegi nag bu fekkente ne nii la demee ñun tamit dañ fii naan tegg Benno Bokk Yaakaar dem ci suñu jubu bopp gis nga waxi kilifa nee nañu waxi mag du fanaan àll gis nga kilifa bu waxee waxam waaw la tudd man de nag man de man de juste xam nga man tey mën nga invité man sama bopp laa xam man Diouf sama bopp laa xam tëngëj laa jóge ma touche ça m'intéresse au plus haut point c'est pourquoi pourquoi encore une fois je suis candidate à la mairie de la commune de Rufisque Est incha allah te mag nga may ma nag ma ñaan beral loxo soxna yi nga xamante ni aussi ñi ngi ci mouvement Nafi pour Rufisque di leeral tam ne mouvement Nafi xam nga lu ko tax a jóg dooleel président de la république ci politique publique yi nga xamante ne nii ba mu fi toogee ba tey samp na ko fi di ko dérouler xamal tax ñu ko ci jàppale xam-xam xam xam nga lu tax xam tax ñu ñu ko ci jàppale parce que dañoo am population électorale boo xam ne ah ñu ci ëpp ñu ngi juddu ay 98 ñi ngi juddu ay 95 97 man boo xoolee sama équipe ñu ci ëpp mm-hmm. à partir de 90 la ñu juddu ñu ci ëpp laa lay wax ñooñu tey ils sont en année de thèse ñi ngi seen liggéey ñu bëri macha allah di leen gërëm di leen sant waaye itam ay a nga fa ak i soxna ma leen di gërëm di leen sant mais surtout euh, sànq li ma wax ci politique publique yi xamul tax mu am solo ndax ñun euh, dañ ko maanaam ak suñu axe programme boo gis hmm, mbébét bi ak it objectif bi mooy politique publique yooyu baral ko pour tënkee ah, ah, ah, ci. nga lu ma sa ci de communication bi. te toujours dans le programme lii lañ yéene lii lañ. mais parce que programme moo am solo. non te loolu programme boobu nag il faut nga am loo àgg ci. foofu loolu tax maa ngi yow mën ñëw li ngay jéggi mooy il faut nga jëlee fi ñi pour mën a def loolu te loolu yow mais programme bi moo leen fi jëlee xam nga tax ah, jëlee kan programme bi moo fiy jëlee ñi nga xamante ne nii dañoo liggéey nag ba wàcc ba wàccee nag xam nga lan la lay def bu wàccee da sampaat seen dënn non mais nga samp xam nga la ñuy wax di xam nga làmb ja la muy yaatul yépp mhm. ndënd yi la muy bëri yëpp mhm. gis nga ca ñal euh, ca cappaandaw ga mhm. kenn rek moo mooy tëggaat ka gañe incha allah ba ca njëlbeen ga ba ca cappaandaw ga du moins xam nga xam nga njëlbeen bi. kuy dem combat da nga naan may gañ mais yaakaar a gañ. allah. Ah bon mais mais gis nga yàlla li muy def def na ko ba noppi li euh, liñ naan yàlla noppi na bu yàgg. xam nga ah fi ñu doon lu ñuy def mottali yéene mottali yéene mooy lan ah, ah respect bi ñu am ci population yi. Mm-hmm. ak it euh, euh, fi ñu leen bëgg yeggale fi ñu bëgg yeggale suñu bopp la ñun ci population yi la boole suñu bopp mooy fexe ba lépp loo xamante ni tey ñu ngi koy dégg ak gis. te gisaguñ ko tëngee ci Rufisque mu am fa la fa gën nag ci programme bi dañoo bëgg mu yegsi xam nga lu ko indi ah wax naa ko. entre gens mooy gagné. gagné mais mais mais mais mais mais. affaire wax. pétition man nga am nag yaakaar ne maay gagné man nañu ko nangul ah. mais ñi ngay li ngay wax ni yow nit ñaa ngi lay dégg waa Tëngéej ñi ngi lay dégg. mais moo tax nga ñëw jaar seen bopp yi rek comme waa Tëngéej ñi ngi may dégg. comme waa Tëngéej ñi ngi may dégg. dama leen bëgg wax beneen axe programme bi nga xamante ni ñun moom la ñu tëral muy un crédit municipal revolving boo xamante ni xam nga ñan lañ ko jagleel. Mhm. ñaari pàcc ci askan wi. ndaw ñi sànq tudd naa leen pour seen formation professionnelle accélérer ko ba pare maanaam rendre ko plus intelligent ak outils yi nga xamante ni tey mooy xarala yu bees yi mooy numérique beneen bi mooy bi mooy fexe ba jigéen ñi mhm. Maodo mhm. Euh, gën a mën seen bopp seen loxo gën a jot seen ginnaaw ci wàllu koom loolu mën nañ ko xam nga lu tax crédit municipal revolving boobu déjà man sama salaire ci laa koy dugal man sama salaire maire bëgguma ci lenn lu dul dugal ko ci fond boobu donc man bëgguma ñu may fay par par weer deuxième bi deuxième bi deuxième bi mu nekk ay banque banque populaire yoo xamante ni mhm. dañ ko bëgg jagleel jigéen ñi ci mhm. quartier yi xam nga tax mhm. ndax tey institution de microcrédit institution euh, de de dañoo wane seen limite xam nga lu tax dafa metti gis nga bu ma gisee soxna yi euh, lépp ñu ñu lebal leen cinq cent mille francs deux mois après ñooy leen commencé leen fay chaque mois nga war a fay trente te xam nga jigéen na mu mel ci am jom ci bañ ku ko taf ay photom ci bureau yi ñuy xool te jigéen ni mu mel ci njaboot ñun loolu jigéen lañu xam nañu nan la mel loolu moo tax tey aussi ñu leen di ñaan bépp soxna bu may dégg dëkk Tëngéej ndawatee na Rufisque Est bu dëkk Rufisque Est it am na kum fa xam wala am na ay mbokk ñu ñaan leen ñu votel coalition Benno Bokk Yaakaar Rufisque Est ak ville ñu gañe ndax nag jigéen nekkaat maire après Ngoné Ndoye bi nga xamante ni c' unique femme maire de Est nag moom tamit bu mu fa jógee way ñaawul ndax la mu fa def ba tey mu nga fa d' accord mais nga li wax ni lépp yaa ngi am sa yéene d' nangul nañ la ko am nga sa programme nangul nañ la ko mais su fekkente ne maire sortant bi nekk ci Rufisque Est googu ngay wax mhm. te dafa fukki ati yàlla ak ñaar mhm. personnalisé wuñu débat bi ah parce mhm. moom tey mooy point central bi parce a def na fa. waaw waaw mais def fa mais. xam nga loo def def day des bu battre campagne. bu battre mhm. campagne ci ñaari élément mhm. ci bilan ak programme bu gën seen programme bi fu ngeen jëm. waaw ñu xool bon bu boobaa akay neex. Ah. akay neex ñu xool bilan akay neex ñu xool bilan bu boobaa di nga xam ne li xale yi naan ah lépp lépp dëgg la waaw waaw. parce que ñun si yow non cela veut dire que kon li ma la déggee nga wax nii. wóolu ma ko moom moom déedéet wóolu ma bilan bi xam nga lu tax mais dafa am lu bëri lu des. bilan Alba Ndoye 12 ans nga ne wóolu. xam nga lu tax wóolu ma bilan bi man ci sama association Tanguy tu tànk. Euh, yàlla daf ma nattoo euh, xale yi man dama njaboote ay xale. njaboote aussi ay mag. xam nga xam nga euh, du ma toog lu mat 6 mois te du ma dugg ci école Tëngéej boo jëlee Tëngéej boo jëlee Rufisque Est. ok ndax foofu nga soxla école yi. foofu nga soxla gannaaw Ismaïla Madior Fall gis nga Maodo mm. incha allah gis nga école yi. aka ñoo wéet euh, ci ci wàllu aménagement aka ñoo wéet ci wàllu cet aka ñoo wéet ci wàllu espace de maanaam euh, bërëb yoo xamante ne ni tey boo fa duggee danga naan c'est digne d'une école aka ñoo ko wéet pourtant l'éducation c'est une compétence transférée moo tax ma ne la bilan boobu doyuma de beneen mbir boo xamante ni tey dafay tax man tamit. bilan Rufisque Est doyu la. doyuma ci wàllu santé de proximité dafa des lu bëri euh, dama fekke yàlla daf ma may ma fekkee parce que ministre. Ndeye Saly Diop Dieng moo ma invité ak sama mouvement euh, ñu ñëw euh, pour euh, fekkee inauguration bi nga xamante ni moom mooy programme d'amélioration du développement économique et social du Sénégal mhm. wàllu PADES mhm. ñu logé ko au niveau du ministère de la femme de l'enfant de la de la famille et, et de la protection des enfants ah programme boobu lu ko tax a jóg mhm. entre autres euh, fexe ba askan wi rawatina nag famille yi gën a gis seen bopp ci lu ñu naan santé ñu ñu sampal leen fa donc euh, ñu demoon ci invitation ci cité bi ñu naan cité Lébu gi nekk ca Jaxaay te bokk ci commune di commune Sangalkam bañ fa demee ñu gis poste de santé bi ak euh, maanaam xarala yi ak et cetera xamul tax ñu demoon fa d'abord parce que suñu sœur la dañ ñu bokk parti mu invité ñu ñu war fa dem deuxièmement aussi pour wax ko ne donc loolu message la tey bu may waxaat parce que démb wax naa ko ko bu may waxaat mu déglu ma euh, euh, aussi dina ma may nopp xam naa ñun commune Rufisque Est bés buñ ma falee maire incha allah te léegi laa ci commencé liggéey bëgg naa bëgg naa incha allah Est bëgg naa waaw bëgg naa tête de liste incha allah maay dem toogi sa euh, fauteuil maire ba bu si ci kattanu yàlla incha allah Euh, ci ci darajee rasulillah sallallahu alayhi wasallam buñ fa xoolal bu ko defee nag poste de santé intelligent bi ñu gis démb boobu bëgg nañ ñu samp ko Rufisque Est boobu maa ngi koy ñaan sama sœur mu inscrire Rufisque Est commune ci programme boobu mhm. euh, au passage sax may wax ne commune Rufisque Est aussi mhm. euh, di gërëm bu baax état du Sénégal mhm. ndax association Tëngéej Tout Tànk bi ma jiite am na financement bu buñ ñu jox ndax dañoo taxawal projet boo xam ne dañ ko tuppee bibliothèque communautaire multifonctionnelle ñu koy nag def ca Colobane mhm. ko ñu maa la gisee nga ñu dëkk sama kër laa ko nara def pour le compte de l'association mais aussi pour bépp waa Colobane dañuy fay tabax euh, commu euh, li nga xam ne mobilité communautaire multifonctionnelle euh, nga may ma tuuti foofu nag dama fay gërëm bu baax Euh, commune Rufisque Est à travers son maire parce que il y mois en conseil municipal de dem naa fa présenter fa projet bi ñu nangu ko euh, euh, ñu nangu ne vraiment donc bii projet bi war na fi mën a samp état du Sénégal financé ma jaarale ko trésor donc koppar ya fi mu toll nii mairie Rufisque Est maire commune maire Rufisque Est moom moo koy xëcc en entreprise soumissionnaire bi nga xamante ne moom moo gagné marché bi xam nañ ko dama leen di ñaan rek. Euh, comme parce que dans quelques semaines la war a démarrer ñu baral liggéey bi parce que xam nga nekk campagne warul tere nga baral liggéey bi nga xamante ni parce que l'État continue de fonctionner donc loolu tout en remerciant le maire Albé Ndoye euh, ci li nga xamante ni invité na ma ci conseil municipal am dama koy wax aussi vraiment équipe yi nga xamante ni donc ñu ñoom la yilif ñu diligenté parce que man maître d'ouvrage la ci mbir mi ndax ñun ñoo moom projet bi ñu diligenté bu ko defee nag euh, le 23 janvier mu fekk déjà déjà chantier bi tàmbali d'accord mais incha monsieur le maire Albert Ndoye waxu may ko tuuti rek léegi man de man de man jaaxle naa man nag man nag man nag de maa ngi bëgg a jaaxle ci docteur Nafissatou Diouf mii nag bu loxo da dara dina gémmiñ xam parce que problème bi mooy man man Diouféen yi dañ maa jaaxal d' accord léegi garaawul man li ma la bëggoon a laaj mooy président Macky Sall xanaa dafa yaakaar ne dënge gépp Ismaïla Madior Fall rek moo fa xam dara moo fa dàq jàng moo xam lépp nan la koy mën a joxee ville bi joxaat ko Rufisque Est man ba léegi ba noppi dama baal sax expression sens figuré la rek c'est une bête politique monstre politique sax la Macky Sall dafa garaaw dafa aay Macky ko aay la le président de la république boo demee sax moo fénqale Kolda fénqale Tëngéej fénqale pour tas pour électorat bi mu mu def ko comme saucisson fii saucisson dagg dagg dagg dagg dagg léegi nag albendo yi même ful la moom yow nag yow nga ne yow ak yow ni nga toll ci Tëngéej ñëpp xam la ah nga dëkk fa fekk fa baax naan xaaral ma dem bootu ji ci Ismaïla Madior Fall bu ko defee bu génnee su paree jox ma Rufisque est-ce que waay mel na Albert Ndoye moom bokkul ndëgg wala du lébu moom eh waaye du yomb di nuyu affaire bi du di nuyu sama ah, mbokk sama mbokk lébu yi ngay ah, tudd sànq ba tey. Ah, lébu yi moom ancité bu ci reer. ndax nag ndax nag. <laughs> ndax nag waa dama lay booleek ñoom. ndax ndax sànq ba tey. sànq ba tey yaa leen di tudd. Euh, di di di wax ne euh, tëngéej dañu am chance Maodo euh, nekk euh, maanaam situation géographique bu favorable la ñu nekk. mais difficile. Euh, très difficile le plan assainissement. difficile mais mais, hum... Euh. mais mais mais mais pas pas irréalisable tax ma wax la ko gis nga Tëngéej yàlla daf ko may ressources humaines macha allah xam nga lu tax ma wax la loolu. waaw mais Ismaïla rek nekku fa nag la. Ismaïla rek nekku fa mais mais mais mais est-ce que moom rek la ñu tabb mu mu mu yor ñaar liste. sa sa sama sama frère Souleymane Ndoye moom moo nekk départemental nekk Rufisque Ouest. est-ce que fàqul woon fan la fàq dem. dem ah, damay laaj rek. dem non déedéet xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga tubaab danaan la jaable mhm. et dans le détail gis nga ñun fi mu toll ni on n'est pas dans le détail xam nga ci lan la ñu nekk. Mhm. ci defar euh, ci ay puso ay ay ay ay puso la ñu dañuy dañuy dañuy defar. xam xam nga tax ñuy defar. te mhm. nga li tubaab bi naan on est à la croisée des chemins ñëpp. nga ne fàng duñu xool nga la waay yàlla nañu yàlla jàppale yàlla may ñu victoire yàlla nag may ñu ñu mën a dérouler suñu programme bi xam nga programme bi lu tax ñu war ko dérouler si ñaari mbir espoir bi mu charrier maanaam gis nga jeunes yi nekk ci Rufisque Est ak ndaw ñi xam nga bu ma ne jeune wax euh, jigéen ñi Maodo tudd naa ñëpp askan wi yëpp. d'accord gis nga ñooñu tey gis nga ni ñu amee pas-pas. ni ñu xëree euh, ci euh, programme bi di ko expliquer. au passage maa ngi gërëm fépp foo xamante ni dugg naa fa kër gu ma dugg ak fu may waaj a dem di gërëm kilifa diine kilifa caada yi kilifa cosaan yi fépp fu ma dem macha allah di ñaan yàlla yàlla dafal ñu cat ak borom cat fépp fu ñu dem programme bi non seulement nit ñi dañ ci adhéré mais dañu naan soxna si ñun dañoo bëgg dugg ci li nga xamante moom mooy liggéey bi gis nga barka déeba dama tëdd ba ay deux heures du matin yàlla mi ma tiim xam na ko mu am euh, benn koo xam ne benn doomu tëngeet la mu dëkk ca Ohio nekk ca Amérique oo ma ne ma soxna si guddi na de maa ngi jéggalu ma ne ko déedéet guddiwul euh, dara guddiwul pour Tëngéej mu ne ma dama bëggoon ñu sottinte xalaat mu ne ma gis naa sa programme euh, gis naa ni nga koy déroulé d'abord ñu ngi la ciy félicité euh, sénégalais yi ne ci diaspora bi xamal ne ñu ngi lay xool di la déglu mais surtout mu ne ma gis nga xam nga lu tax ñuy waxtaan waxtaan wu xóot mu ne ma xam nga lu tax li ngeen def am solo gis nga nit ki boo ne yow da nga ko bëgg a jiite da nga koy tane dara xam nga tane dara bi mooy lan mooy sànq li ma la wax rek am vision boo xamante ni peut-être que moom peut-être que ñàkk koo am sax mais comme ni ma ko waxee jot beek ak léer ak leen tax na amu ko mu ne ma gis nga ñun fi ñuy dëkk nii mu ne man dama la jox sama cas mu ne ma nee na moom dafa toog barka mu ne ma dama toog semaine sama potu lampe bi ne nee na bu buy xëy rek day teel a xëy day gis ne du tàkk nee na mu def benn mail envoyé mail ki nga xamante ni foofu aussi en parenthèse maa ngi wax ne suñu état civil yi euh, suñu mairie yi dañ ko numériser dina réglé problème yu bëri il faut que numérique bi mu gën a dugg ci li nga xamante mooy gestion commune mu ne ma dama ko envoyé mail rek nee na le lendemain nee na maire bi ci waxam nee na bi mu xëyee di liggéey nee na maire bi moo jiital équipe bi ñu koy pooseel ay lampe ci buntu këram mais mais gestion de pro xoolal xoolal gestion de proximité ba pare xoolal beneen pàcc ñun suñu programme muy gouvernance locale participative gis nga gis nga nit ñi gis nga nit ñi li tubaab bi daan tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi gis ay nit la ñu ah yu ñu soq ñu danga leen di wax nag lu leer ñu mën a dugg seen bopp. waaye yow da nga a wax sama encore bi yow loolu nga mën a mën a nangu. yow kan man fa ma dem waxuñu ko fa ma dem fa ma dem waxuñu ko te xamuñu lan la ñuy liggéey. xam nga nit ki tàmbali jege jege naa la ko ba mu juddoo ba tey mu mu ngi dëkk te ngéej ji. Ah, xanaa xam nga <laughs> xam nga yéen journaliste yi. Ah, da ngeen da ngeen da ngeen aay macha allah. parce que parce que yéen. parce que yéen da ngeen di orienté débat foo xamante ne du foofu xamalu tax gis nga programme gis nga président gis nga président ki mu tànn kooku la Maodo président ki mu tànn kooku la maa ko bëgg yàlla na ma ko yàlla non mais ah. boo koy tudd da koy tudd ci loo xamante ni ah. ah, dëppoo nag dëgg mi ngi Ismaïla Madior mi ngi dem ci nit ñi mi ngi amal na leen njariñ parce tamit dem ca nit ñi amal leen njariñ avant mu koy wax la dem léegi ñu ngi ci jano bi ak euh, docteur euh, Nafissatou Diouf di taskatu xabaar comme noonu donte léeg-léeg mu sànni nuy xeer mais grawut amul problème ak njuufeen la mais ci biir loolu Rufisque est-ce que gii nga bëgg ko ànd ak sa tout tànk yeeg. sa ak mouvement Nafi pour Rufisque Nafi pour Rufisque yëpp yëpp te léegi sa programme d'accord léegi. dangaa yaakaar na yow ña nga fa bëgg a jëlee ñoom daal ñoom parce que yow yow bu ku la dégg ngay wax daa mel ne yéen yéen léegi la victoire est déjà acquise loolu yow pour man loolu la. xam nga li ñuy def pour logique ngay waxee nii. Maodo xam nga man oustaz laay waxal ku jàng diine laay waxal yow xam nga gis nga dañu naan élection. li xew mottali la waaw mais mais xamoo li xew suba mais euh, di nga nangu dogalu yàlla xam nga nangu dogalu yàlla mooy la. xam nga gis nga élection mottali yéene rek la xamul tax. gis nga yàlla mottali yéene mooy maanaam yàlla euh, fal na ka muy fal ba pare. xamal tax mu fal ka muy ah, mais mi mais nag ñun nag. Ah, comme d'accord ak yow. waaw mais mais mais moo tax ma ne la fi mu toll nii xam nga nag la moo des. Mhm. Hmm? xam la moo des euh, wàcc ci terrain bi ñun depuis des mois ñi ñi ngi wax ci terrain bi. Mhm. Euh, waxtaan ak nit ñi parce que nit ñi boo leen waxee ñu dégg. comme seen hmm? mais mais xam nga combat. mais mais mais xam nga lu tax da jëfandikoo. xam nga xam nga xam nga Maodo fi mu toll nii man man dama lay jox rek benn métaphore. xam nga fi mu toll nii wala ma jox la benn analogie en tout cas ma compa ma def benn comparaison. xam nga fi mu toll nii yow boo nekkee athlète. nekk ci euh, benn course. moo xam maraton la. moo moo xam 100 mètres la et cetera yow xam nga booy daw xam nga booy daw. boo geesoo rek sa ka ngay sa sa challenger raw la gis nga gis booy daw doo geesu. ñun fi faalewu leen seen challenge seen mm, mm, xam nga boo ne faalewu non je veux dire non bàyyi mais bañ a a bàyyi xel mais parce que dañ leen respecté on les respecte au même non mais mais mais je n'en disconviens pas mais xam nga lan moo am solo ci affaire bi euh, au delà de la politique ma dama koy faral di wax mhm. parce que bu doon politique rek Tëngéej romb na fi bi yàgg mais nag dañu ne politique de développement dañu ne une nouvelle manière de faire de la politique dañu ne ah personnel politique bi il faut nag ñu xool ñan lañ ci gën a dugal jigéen ñi bokk ci bu baax xamal tax may insisté ci jigéen ñi. gis nga gis nga gestion ah, en tout cas sur y' a 90 pour cent de mères hommes donc dafa mel ni donc am na lu des bu baax. may saluer au passage may may saluer au passage le caucus des femmes leaders même si par ailleurs yéex nañu jóg xamal tax parce que pour man du ñu xaar ba élection ñu ne jigéen ñi. xam nga dugg leen baax ci ci élection parce que non non yàgg nañ yàgg yàgg nañ mais casse bi gis nga casse ah. bi mais aussi ñu former jigéen ñi xam nga lu tax xam nga ñu war ñu former Maodo mhm. peut-être que ñun macha allah chance bi ñu am peut-être suñu cursus scolaire moo ñu ko may ak leen ak leen am na ñoo xam ne amuñu chance boobu te pourtant noonu la ñu xarañe ci politique wala dara mais affirmation bi day des xam nga tax parce que yarin wa ñun ñi bañ ñi yar suñu yaay it da nga ne naan jigéen day dox ndànk day wax ndànk jigéen baatam warul jóg mais loolu boo bëggee def politique sa sa baat il faut mu jóg parce nag politique ce n'est pas seulement que des caresses c'est des coups très durs ah c'est des coups très yoo xamante ne nii parce que c'est des coups même si liste yi xam nga xam nga wuy waa tête de liste bien beau mais xam nga aussi liste boo koy def aussi yow danga nga am ay collaborateurs yoo xamante ni yow après bëgg nga liggéey ñoom mais euh, problème bi mooy euh, ak lépp lu mën a am le linge sale se en famille. mais mais na la nit ñi oh, dégg. na la na la nit ñi dégg donc donc li may wax nii dafa am solo gis nga Maodo. jigéen ñi aussi il faut que ñu gën leen jàppale gën leen accompagner ñun. Mhm. Euh, candidature euh, féminine bi nga xamante ne moom la ñuy. Euh, moom la ñuy prôné. Mhm. au delà de l' aspect paritaire dañu ne jigéen boo ko joxee à compétence égale ah joxul ji jigéen mu jiite. jigéen moo ëpp empathie li tubaab bi naan empathie maanaam jigéen moo gën a mën a yërëm góor. d'accord jigéen jigéen moo gën a mën a fàtte boppam pour askan wi jëm kanam. pour njaboot gi d'accord donc dafa am solo ñu xalaat ne jigéen ñi dañoo war a bokk maanaam dañoo war a nekk ay maire gis nga man bi may dès que dès que ma candidature dès que j'ai mais au moins. gis nga jigéen gis nga góor ñi xool ay ay góor ma doon oo ñoo xamante nii ñi ngi ñi ñi ngi ci langue yi waaw Nafi kaay ma def la sama liste nga nekk adjoint nga nekk président commission may leen bugguma adjoint au maire intéressé wu ma président de commission intéressé wu ma xam nga leen moom intéressé ah, may leen may leen maire moom intéressé nekk nekk ki nga xam ne moom mooy décider di nasaka noot yi pour avec la communauté nag pas de manière démagogique encore une fois gouvernance locale participative ça veut tout dire mais nag ñu nekk ay jigéen nekk ci kanam parce que dañoo sonn nag nekk ci parti politique yi buñ ne animation ñu ne jigéen buñ ne organisation ñu ne jigéen buñ ñu ne góor dem. sama kilifa santuma hmm? loolu. du ko def sama kilifa président Macky Sall santuma loolu. sama kilifa lam ma mais ñooñu mais mais mais ça les mais ça les engage. man sama bopp laa xam ak sama éducation ak samay valeur sama kilifa bu ma waxee man man jinne du sama kilifa bu yàlla bu jinne ne sama kilifa. yàlla na ma yàlla may à chaque fois may déglu samay kilifa président Macky bokk nag ci nag ci wàllu politique c'est c'est mon seul et unique. kilifa en politique moom laay déglu. d' moom ngay déglu moom la Ismaïla Madior Fall di déglu mais Albé moom am na fulla ju toll ne bi ko Macky Sall bëggee na mu ne ko doyul. fulla moom kenn duñu ko jaay. Ah, parce que nee nañu fullaay jaay Dakar wala ma ñam jeexal ko. mais d' naa élection. moom tamit mu ne samay mbokk ñi nga bëgg a. waaw mais mais xam nga <laughs> xam nga xam xam nga loolu xam nga loolu man ma lu si ak ak moo ci moo suñu et après coalition Benno Bokk Yaakaar. mais Macky dëkkul Tëngéej. Macky dëkkul Tëngéej waaye moom moo moom moo njaboote ñëpp Sénégal yëpp moo leen njaboote. loolu la ko yàlla nattoo te mu koy def nag ñu koy ñaanal nag yàlla may ko ci ndam. waaw ñu koy ñaanal yàlla may ko ci ndam. amiin ok euh, ma fàttali ba léegi ñu ngi ci jano bi ak Nafisatou Diouf mi nga xamee ne moom euh, Nafi Tëngéej nangam nangam xale yi Tëngéej nangam nangam. fu ne nga dugg fa d'accord léegi man man man day man man nag sa candidature bi jaaxal na ma yow jaaxalul sax yow yow sa candidature bi jaaxalul xam nga lu tax kan kan mais ne fàng ci kanam mais yow da ngaa bootu man boote gi man mooy sama problème il faut que Ismaïla Madior Fall gañ ñu doog a xam yow fooy féete sinon yow kenn xamul ci loo ne xam nga xam nga xam nga Maodo dafa mel ni bëgg. te tamit kaay ma xam c'est vrai sax loolu dëgg la ndax bëgg lu yomb sax baaxul mais li nga bëgg jafe na de. lan la Rufisque est gë est gële. daay ak a yomb xamal tax mu yomb. a diis ña fa nekk ak a ñoo bëgg lu baax gis nga gis nga booy jiite ñu bëgg lu baax. gis nga gis nga booy jiite ñu bëgg gis nga booy jiite ñu bëgg lu baax doo sonn xamalu tax. yow balaa ngay def sax ñoom ñu commencé xamal tax moo la ko dama dem fan yële passé fu ñu quartier bu ñu naan Garga Mbossé mhm. ci guddi gi parce que booba euh, man damay bu ma wàccee ndax damay liggéey nag moo liggéey ba wàcc nag. moo duggee ci terrain bi. may maa ngi ci terrain ba minuit ma dugg ci quartier bu ñu naan Garga Mbossé ma dem waxtaan ak jigéen ñi bi ma paree euh, ñu ànd ma ànd ak jigéen ñi ñu dem ci benn kër boo xamante ne nii dañ ma fa doon présenté benn waay euh, xale bu góor bi moom tamit day liggéey bu wàccee. Euh, ñu gis ne ci koñ bi dafa am benn kër boo xam ne ak bëri sax Rufisque ak a bëri foofu kër yoo xam ne seeni borom mm-hmm. vraiment maay lancé appel ñi nga xam ne dañoo am ay kër yu yàqu et cetera mm-hmm. buñ ko bëggul wala buñ ko mënul toppatoo aussi maire yi war nañ leen accompagner mm-hmm. euh, kër gi sëkk la woon sa sëkk lañ ko def kër gi pareewul xaw ma dañ ko tabax en tout cas ña fa dëkkoon dëkkuñu fa mu nekk sëkk kuy tuur fa lay tuur kuy xale bu góor bi jekki-jekki benn jour rek mu mu maar loolu ñu ànd ak waa koñ bi ñu raser kër gi Euh, maanaam déblayer ko. sëkk lañ ko def. Euh, sën lañ ko def pardon sën. mu dindi mu dindi affaire yëpp. ñu dindi yëpp raser xam nga ñu ko def. Mhm. jardin. mais c'est important. mais c'est plus qu'important. oui c'est c'est ce qu'on appelle la résilience jardin lañ ko def. non seulement dañ ko def jardin mais fa la ñuy defee seen thé débat fa la ñuy waxtaanee mais ñooñu tey xam moo tax ma ne dañoo neex a neex a jiite parce que dañu xam nan la gestion commune war a mel te loolu. mairie bi ñoo commune bi moo leen ci waroon Euh, dafa war a recenser coins yi nga xamante ni aussi c'est c'est un petit peu des dépôts d'ordure sauvage wala dafa ne kër yoo xam ne dañ ko abandonné parce que foofu noonu ñoom bu ñu xarañul woon mais foofu naka su dul noonu. waroon waroon na fa mën a am pour yow maire mais dañ leen fàtte de. mais ñoom fàtte ñu seen bopp dañ leen fàtte. te foofu ak a bëri Rufisque man rek sama koñ am na kër goo xam ne sama koñ. am na kër goo xam ne te boobu avant may dugg ci politique la sax dama daan aalo dama naan sama yaay yaay man damay au service d'hygiène parce que fii ni mu mel mu naan ma déet na fi sutura xam nga tamit population yi euh, tut naa sama yaay maa ngi koy nuyu kan jàlloo ba maa ngi koy nuyu di ko ñaanal gudd fan ak wér xam nga lu tax euh, euh, loolu am solo parce que ñun dañoo nekk ci dëkk yoo xam ne alhamdulilah bokk na ci valeur yoo xam ne tubaab yi moom la ñu ñeewee sutura valeur teraanga et mais aussi il faut que ñu changer un peu de manière de faire cest à lu lu normalul bu normalul il faut que citoyens yi man en tout cas je serai une mère un maire parce que man madame le maire laa bëgg ñu may oowee pas madame la mairesse ni ni ni madame la maire madame le maire xoolal dama dama dama bëgg yàlla yàlla yàlla dafa naw koo xam ne dafa wóolu boppam sans pour autant nag beew yàlla na ma yàlla musal ci beew gis nga euh, dama bëgg am une euh, maanaam une euh, conscience citoyenne bi foofu laa bëgg mu gën a juddoo maanaam ci nan la ñuy tabaxee suñu suñu dëkk yi parce que yenn saa yi politiciens professionnels yi dañuy nax xale yi ci lu bëri naan wuyi xam nga affirmation conscience conscience collectif xam xam nga fan lañ ko namm xool a bi dafa mel ni ndékkiwul. mais mais probablement nga bi nga xëyee. Euh, mburu maa ngi fi jotee bu ma paree ma ma paree wàcc ko dama ko fàtte wàccaale non xam nga ma la bëgg wax wax. waaw la bëgg wax. kon la gagné. ah, ah, ah, ah wala fi mën a leen yàlla moo xam kii gagné mais li ma la mën a wax mooy sama mooy sama programme dafa dëppoo ak bëgg-bëgg Rufisque Est ak bëgg-bëgg xale yi ak bëgg-bëgg mag ñi ak bëgg-bëgg. jigéen ñi bu sobee yàlla incha allah ils vont voter massivement pour la coalition Benno Bokk Yaakaar 23 janvier bu sobee yàlla à minuit. Mhm. Hmm? Mhm. Euh, invité naa la Tëngéej ci kattanu yàlla waaw. yow sa yow ni ça y fait mais xam nga aussi booy dem booy dem examen. Maodo Maodo xam nga booy dem examen. waaw naturellement da nga yaakaar na ngay waaw waaw mais boo jàngee ba mokk. boo jàngee ba mokk macha allah ah daa di euh, ne ah yàlla maa lay ñaan nga jàppale ma. ndax euh, lii bu ma ko amee bëgg naa sama yaay euh, gën a mën a maanaam bëgg naa am liggéey boo xam ne war naa mën tabaxal sama yaay kër war naa mën def lii yàlla soxoru yàlla nee na maa leen gën a jege xoolal seen sil yi ni mu jegee seen bët maa ko gën a jege donc yàlla nee na aussi taal leen ma seen loxo ba ñaan leen maa ngi koy taalal sama loxo man en tant que jigéen jigéen am nag lu lu ko yàlla jagleel ñu fàttaliku soxna Xadijatu bu yonent laa bu tedd Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na mu taxawe woon euh, yonant bi taxaw ko nag diine noonu laa bëgg en tant que soxna ma taxaw ko waa commune Rufisque Est yàlla may leen ñu bokk ci commune yi gën a naat ci Sénégal incha allah d'accord mais bi ma gisee sa programme bi ak li nga wax mhm. su fekkente ne programme bi yépp nekk Rufisque Est mhm. kon man kon kon ko moom kon amul maire ah bu dee bu dee li nga bàyyi ma limal la ko non ma limal la ko xam nga. xam nga xam nga mooy sa programme bu le programme de Nafi pour en quelques points. protéger garantir les droits des populations. mettre en œuvre des politiques publiques inclusives qui répondent aux attentes des populations. protéger l'écosystème marin en mhm. boostant les nombreuses possibilités offertes à travers le marketing territorial. marketing territorial mooy fexe yow ba mën a jaay sa commune mieux organiser les métiers autour de l'artisanat et les encadrer pour, une gérer, pour générer des revenus plus conséquents pour ces actes et nag ñu mottali parce que loi bi génn bu yàgg décret signé nañ ko ñu mottali li ñu naan gouvernant euh, li nga xam ne mooy fonction publique locale. fexe nag fe non parce que loolu tam dafa am solo xamal tax mu solo tey. Maodo maire ba xam na ko. waaw xam ko tawul mu def ko xamal tax Maodo. xamal ah. xamal tax Maodo dafa am solo. oui Euh, c' est une ville dortoir pour le moment xamul tax ma ne c' est une ville dortoir hmm. euh, ñi may ñi may déglu xam nañ ko gis nga Tëngéej ñu ëpp ña fay yeewoo. nelaw bu ñu xëyee ñu nga ñu nga àbbi dakaar wala ñu nga àbbi feneen ndax entreprise à part entreprise bi ñu tudd sànq man de gis ma fa benn entreprise mag boo xamante ne mën na fa employé ay jeunes. pas seulement nag ñu nekk ay ouvrier je respecte les ouvriers maa ngi di gërëm leen sant mais aussi nag ñu nekk fa ci ay fonctions yoo xamante ni am na solo ñun suñu axe programme loolu da cee bokk. fexe ba fexe ba ubbiwaat yenn yenn entreprises yi. am na géographiquement Tëngéej ni mu bindoo moo tax mu compliqué nee naa la. compliqué wul ndox mi da ko xaw a gis nga ndox ma moo ndox ma ndox ma mooy xéwal ba nag. gis nga moo tax ndox moomu ci ndox moomu noonu dama bëgg si ndox moom dama bëgg ñu ne fa duut baaraam xam lu tax gis nga dafa am euh, quartier boo xam ne Thion la tudd bërka démb rek maa woon maa ngi woon Puyeen euh, fan yële maa ngi woon Ndengeen sama sama sama kër maam euh, ca digg euh, xam nga foofu dafa am lu doy waar gis nga am nañu lu mat un kilomètre ah yoo xamante ni de côte foofu rek cëw leen un kilomètre boo xamante ni dañ fa def lu ñu naan zone écono zone écologique communautaire. parce que dafa làngo géej gi. Mm-hmm. gis nga ñun foofu xam nga ñun loolu la mooy suñu rêve incha allah. Mm-hmm. buñ ñu falee maire mooy aménager ko ba am comme corniche Dakar. Mm-hmm. respecté nag. Euh, sët ya fa nekk di ñaanal ñëfa tëdd yàlla xar leen àjjana mais fexe ba foofu noonu aménager ko parce que population yi bëgg nañ ko mais aussi euh, seen doole seen doole tool tollewu fa ñun dinañu xëcc programme yoo xamante nii ànd ak ku ci mel ni UCG may gërëm bu baax Mass Thiam ak liggéey bu xarañ bi muy def ma koy oo ci ñun aussi suñu axe programme mu jàppaluñ ci oo yeneen programme état yoo xamante nii dañ koy aménager def ko ale boo xamante nii ndaw yi parce que foofu aussi ndaw ya fay sport dafa bëri ASC Thiawlène ma tudd ko ma tudd sama ASC Colobane sama sama ASC euh, euh, jeunes yi ñu am fa espace de sport mag ñi aussi parce que am na fu ñu naan pond yi xam nga pond boo ko waxee ci lébu mooy fa mag ña di toog di daal di mm, attaaye maanaam ñu gën ko aménager mm. xam nga ba nga xamante ne nii euh, wàllu li nga xamante ne moom mooy environnement marin bi mu gën a yëwén xale yi gis gis fa seen bopp mu set dëpp ak modernité beneen sama benn axe programme ba tey muy

xam nga tax bu yomb. Uh-huh. nit ñi dañoo bëgg ah mère bu jigéen. ah bon xam nga tax dañoo bëgg mère bu jigéen. waaw pas bu jigéen rek de man bokk naa si ñuy naan discrimination positive waaw mais bu fekkee compétence yaa nga fa dañoo bëgg mère bu jigéen. parce que bu am compétence. oui jege population ba ba pare nag di bar ci liggéey bi. gis nga bar bi lu am solo la. waaw d'accord ma maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. ah xaat lan fi nekkee daanaka def nga cinquante quelques minutes xam nga Ndioufène moom bu wax day dem rek fi ne yow xamoo sax lu xew ci àddina bi yaa ngi mbëkk di dem sa programme bi nanga mais grawul euh, ma fàttali ne suñu suñu suñu suñu concert la nekkoon na fii ci rajo bi et tout di la sant bu baax a baax di la gërëm léegi looy tëjee. Euh, li may tëjee sant ngërëm la. Mhm. d'abord ci yow mi ma invité. Euh, may ma ma ubbil ma sa sa micro ak sa buntu may leen di ñaan tam ngeen ubbil soxna yi. Mhm. Euh, micro yi ak buntu yi di gërëm di gërëm technicien yi. Mhm. mais surtout di lancer un appel di oo jigéen ñi nga xamante ne nii tey ñi ngi may déglu nekk ci Tëngéej waaye tam nekk ak feneen euh, ci àdduna bi di leen wax ne li nga xamante ni tey moom lañu ñu soxla mu nekk jiite maire Rufisque Est mhm. ngir mën a yeggali nag yéene yi nga xamante ne moom la ñu am ci askan wi ñu ñëw jàppaluñ ci. di gërëm képp koo xamante nii boobu ba tey ñi may oo mu nekk góor la muy jigéen la muy kilifa diine kilifa caada yi maa leen di gërëm bu baax di leen nag tàllal samay loxo di leen wax ñu ñaanal ñu ndax yàlla mottali yéene bi incha allah jërëjëf soxna na Nafissatou Diouf mi nga xam ne nekk na candidate fële fi ñu tolli ci Rufisque Est wax ne moom Albert Ndoye la fa bëgg a jëlee ndax bu fekk wax xaayaan ku dégg séeréer wax ji leer na nañ xanaa kay dafa kifin rek di ko wër-wëral waaye wax ji leer na teg na fi programme am itam euh, yaakaar naa ne beneen dimanche incha allah daañu dikkaat ci beneen candidat boo xam ne bii moom tamit goxam am na fa bilan wala am na lu mu fay féete wala am na lu mu fay yéene ma fàttali tamit yaa ngi bokk ci Benno Bokk boot yi tamit ci gannaaw euh, le ministre Ismaïla Madior Fall bëgg daal tedd liste bi nga nekk ñu boole la ci mbokk yi kon beneen dimanche incha allah daañu di kat ci beneen gan jërë ngeen jëf wasalaam merci beaucoup jërëjëf